كريم واسع السلام عليكم ورحمة الله ngi siyaare mboolem mbokk yi fi teew yépp di jiital ci ziyaara bi ak nuyoo bi jëmm ju tedd ji nga xam ne moo fi teew si tey ci jataay bii di Sërif Muhammad Ataqi doon sëtub Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne bis bii nuy dundal ak a màggal ak a warmaal di ko defee ci kilifteefu Sëriñ Amar Diagne lépp maamam moo ko waral di ci toftal sunu sang bi mu àndal muy Sëriñ Baaxeel Buso doon kóllëre sëñ bi di xaritam bu yàgg lool ñuy ñaari kilifa yoo xam ne barab bi miin na leen lool waaye bis bi it miin na leen nag kon sëñ bi nee na mu ngi leen seedeel na xolam sedd na seen jataay yii ndax lu bis bi rëy rëy ak lu mu neex neex te nuyoogut ak yéen day mel ni day yëg na am na lu manqué ndax tàmm gum leen ci tàmm waaye taamu gum leen ci taamu itam waaye nag li muy sant yàlla mooy yëg gum yëg ne bàyyi ngeen xel bis bi ba xam ngeen seen bi si bopp la ba du leen fàttali du leen soññ waaye saa bu toogee ba waxtu wen leen daan nuy jot day sigi seen leen neen loolu mooy li ko dàqal ci mbir mi kon mi ngi ñaan alaqa boobu muy muy diggante boobu ak àndina boobu da yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla sàmm te nee na mbégte mu ci am xam na ne mbégte mi ci njaboot gi am moo ko raw la boppam loola kon neen sëriñ mi nga xamal ne bis bi sa la ndax sa bisum maam la waaye sa bis la it ndax bisam moom mooy sa bis kon mel na ne sa bis la ci fànn yëpp nee na li ci gën a neex nag ci gën a mooy ni ngeen koy defee su ngeen jógoon rek waaxu si ci këram gi yem nag moom day rafet lool waaye njaar gi ngeen njaar si bàyyi mbay ñaan nag ngir xam ne foofa barabam la moom moom la su ngeen fa nekk mel ni fi ngeen nekk neen loolu mooy li ci gën a neex ndax nee def lu baax baax na waaye defin wa dana ko yokk ab baax dana ko yokk ak taar wa in ahsantumu ahsantum li anfusikum kon nee na jëf jooju yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla gërëm yàlla na ko yàlla yàggal li nga xam ne nag moom la bëgg a wax ci seen diggante ak si jëf ji ngeen dox seen diggante moom nee na du wax joo xam ne làmmiñ mën na ko tudd ndax xol bi moo ko ëmb waaye tey jataay bi day jataay wax rek te ku wax ku ne faaw ñu la moo tax kon nee na kàddu yi mu koy wax la waaye seen diggante li fi feeñ ay jëf nee na doy na sëkk ay kàddu te defe naa ne mbooloo mi ñëpp mën nañ ko seede kon ni ngi ñaanal sëñ bi ak mboolem njabootug maam Njaga Fatim suñu borom bàyyi leen ci suñu kanam ñu yàgg a sàmm noonu Njaga Fatim lii waaye yéen ñii itam nga xam ne yéen a ànd ak ñoom nekk ci tund wi di leen wéttali di leen jàppale loolee it ànd boobu yàlla na ko yàlla yàggal lool ndax dama koy wax ne suñu kiiraay ngeen suñu dimbal ngeen loolu moom nu xam nañ ko bu a baax a baax kon yàlla na ko yàlla yàggal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégg baax na ci kàddu yi xëy na sëñ bi moom boo xaloon boppam wax dëgg mooy gën a jub mooy gën a mat waaye dama waxoon rek jëf joo xam ne moo gën a mat wax ja wax ja nu mu toll rek baax na <laughs> jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant